Bousso li ma ñaan sama yeneen sœurs yi ak group boobu wax ministre de la république yëpp ñoo ngi fa ak DG yi dama leen di ñaanaat yéen tamit sama sama njaboot mu ngeen njabootoo ma ma bokk ci seen njaboot yéeneen ñu bokk ndey ak baay ngeen nekk sama famille pour le moment bu leen nee défaite j'aime pas ce mot on a gagné bàyyi leen wax dañoo daanu wala dañoo duma c'est pas le moment ki lu ñu nekk nii xare la ku nekk na ci teg bakkanam que on a gagné bu ñu jëloon ak jaasi ak bal pistolet tiimal la ko ci sa tàmp neen on a ñu rey la mais neen on a man loolu laa gëm il faut pas être des lii dañoo lii dañuy daanu élection amul foo dul daanu mais on laa majorité amul tey benn taxawaay bu ñu war a taxaw lu dul Mimi nu mu taxawee tey loolu laa gëm ni Mimi Touré taxawee ne on a gagné kenn ku nekk muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw surtout ñun jigéen ñi nañu def comme moom on a gagné yéen démb est-ce que xool ngeen kanamu Mimi Touré bi est-ce que vous avez bien regardé cette notre sœur notre maman notre tata suñu compagne suñu tante suñu maam xool leen xool leen Mimi kanam bi ngeen xool ni ma xoolee photo président Macky Sall bi ku nekk war a takkaayu ne tey jii comme Mimi Touré laay taxawee. ñu taxaw parce que ba muy ba muy dem di di campagne yi ku nekk taxaw na am fierté ci moom kon tamit moo ngi continuer di xare te tey la xare bi neex ngeen taxaw ñépp ne on a gagné amul leneen lu ñuy lijjanti bu sa sekk bu ñu paree nañu wax lan moo tax ñu daanu loolu nëpp interne la ñun Sénégal dañoo tàmm sutura bu ñu paree man xen kenn ñëpp xam nañ ma kala mooy yaani mbaroo di nani no ungoo man képp ku ma xam xam na ne gay na njaay laa duma dellu ginnaaw man maa dàq wax luy saf ak luy metti parce que ba ma koy wax kenn waxul ba may wax di wax lii tey ñu dal ñu kenn waxul ñëpp dañoo ne damaa bëri histoire damaa bëri wax frustré la mais c'est pas le moment le moment en est tey la xeex bi di war a tàmbali ni ñu génnee woon lay Wade palais xeex ak moom ba jël pouvoir bi tey ji arme boobu courage boobu détermination boobu na ëpp on a gagné on a la majorité à l'Assemblée national point man investiruñ ma investiruñu ku ma bokkal investiruñu sama doom eh, sama takkandee sax du génn assemblée nationale mais nañu taxaw ñu xeex man Rougui Bousso loolu laa gën li ma jot a am ci àdduna nguur may ma ko rayante moo ma ko may ak détermination yàlla def ci loxoom boo taxawee nga ne temm yàlla taxaw ne temm borom caq du xeex ak borom baatu kese tey ñun ñoo yor caq bi mais kuy téye ci càq bi du nangu cek comme dem tey jii détermination boobu la ñu am ñoom lu ñu bëggee jël càkk bi rek ñun ñu am fulla ak fayda noonu téye ko parce que xam nañu nan la ñu def ba am ko loolu laa gëm gëmuma leneen te bu fu fi kenn waxati waxu waxu defet fii ko ko bi wax dinaa la génnee groupe bi que ça soit clair on a gagné levez-vous bu leen sëgg bu leen bu leen dellu ginnaaw on a gagné amul leneen amul leneen depuis ci suba ba tey ay autorité ñoo may woo nee ma langage bi nga tenir bu ko dindi wax ko ñëpp ñëpp nañ ko def dugg leen ci réseaux sociaux yi bu sa sekk boo mënul bind munoo def live jëlal sa vidéo Macky dolli ñu bi nga woy nga duggal ko nga wone ko keneen bu dee Mike la mën ñoom Rama Aado ñoo ngi rayante ci réseaux sociaux yi maa ngi leen di gis ñoom Gumba Macky ñoom Madamar groupe bi ñu mag ñu bari maa ngi leen di gis ñoo ngi def seen ma mënin yéen tey mi génn leen bu leen wax dañoo perte pertement am na mais c'est pas moment xam nga lan moo am tey jii lan mooy priorité on a gagné nañu jiitu conseil constitutionnel ñu jiitu les électeurs nañu jiitu population bi nañu jiitu l'opinion publique nañu jiitu même ñu ñuy manipuler nañu leen jiitu ko on a gagné mbir mi foofu kese la amul leneen.